jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur people 221 ñi siiwul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm euh, te di ko saako ci yéen di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na sunu borom doole jàmm euh, di àndaat ak yéen naqar bi nga xamante ni dal na képp koo xam ni euh, nit nga mais rawatina ngay jullit mais rawatina ngay sénégalais ah vraiment jàmbeeg pexem buur bi aussi ak dogalam. Mm-hmm. Ah, dañuy wax nag ni lu mel nii moom bu xewee ci dëkk. Mm-hmm. day baax ñu taataan suñuy micro ñi nga xamante ni ah, nit ñi ñu waxee ñu déglu leen seen xam-xam ah, màcc na ci wàllu wi ba tax na ñu choisir ci kii di alxakim borom saraxi mm-hmm. fas yéenee waxtaan ak moom seex bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ngi lay siiwar. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulahi taala mm-hmm. euh, mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di am kontaan baax. Euh, tey ñaan yàlla yal nañu yàlla defal jàmm. waaw maa lay mm-hmm. sama xarit sama sama xarit maa lay nuyu di la ziare di am kontaan bu baax nag. Hmm. Euh, tey ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax. alhamdulilah waaw ah, ndaxte dañoo wax ne jàmm moom ci la lépp xaj. Hmm. waaw bu ñu yàlla defalee jàmm rek. Hmm. lépp lu ñu bëgg mën naa yomb. kon dama lay delloo kàddu gi rek. nuyoo bi am na solo fi may njëkkee. Euh, bala maa ñëw ci naqar bi nga xam ne dal na Sénégalais yi. Euh, fan yee ñu nemmeeku benn concert casserole boo xam ne amoon na fi. Hmm. mu di la première kii di Ousmane Sonko. Hmm. joxe woon ndigal pour ñu def ko. Hmm. Euh, naka nga jàngatee loolu. <laughs> waaw xam loolu euh, maanaam ñu ci bëri maa ngi dégg ci ay version ñu naan moo waral jiyee ji am fan yi te te demewul noonu parce que boo xoolee yaakaar naa bii mooy deuxième fois. ñi mu di ko def. waaye bu koy bu koy def lim koy defee mooy am naqaru xol. Mhm. am lu mu bëgg faj mënu ko saafara. Mhm. mooy tax mu def loolu. Mhm. mais loolu du caage ne parce que yàgg na ko def xanaa kon boobaa. <laughs> bu njëkk ba. jiyee ji xew nii. Euh, beneen beneen mënoon na am. mais demewul noonu. loolu saa bu ko nit defee day fay donte nag baaxul ci kër. waaw loolu beneen anam la mais saa boo ko defee rek. da ngay wane sa naqar xol. maanaam day am loo xamee ne daf laa naqari. nga bëgg koo génne. dañ naan la bu dee bu dee bu ñu bëri ñu ngi jaawale maanaam kubéer yi ak cin li. nee naa leen cin li moo gën a danger. bu dee kubéer gi. dara nekku ci. cin li la ñu wax baaxul. wax nañ ne bu boo yoree cin sax romb góor la gën mooy nga teg ko boo boo boo boo boo ko tegee bam laal suuf ngeen yëkkatiwaat ko da ko yóbbu. loolu mag ñi dañ ko daan def waaye bu dee kubéer yi moom dara nekku ci day fekk nit ki am naqar xol mu génne ko euh, bu ko waxee xëy na nit ñi duñ ko dégg lenn rek la mën a def mooy loolu. Hmm. bu ko defee nag ah ka nga ka nga bëggoon mu dégg message bi na ko dégg kon nag yaakaar naa ni loolu la mais du caage ni euh, ñu bari dañ ko gaafal. nee nañ gaaf la baaxul ci réew. d' foofu noonu sax lay ñëw. waaw parce que ñu bari boo xoolee tàmmuñ di gis loolu senegal mm-hmm. mag ñu bari sax daan ko tere. ci wàllu baatin loolu noonu ban effet la. mën a def ci réew maanaam tëgg rek moom tëgg kese kese rek day tëj gàllaaj tëgg kese mag ñi dañ daan bañ nga toog ci baax di ko tëgg loolu day tëj sa gàllaaj euh, maanaam tëgg dañoo xam ne ak ay tëggam waaye bu dee kubéer yi maanaam nee naa leen bu doon jël ci nii di ko tëgg loolu moom baaxul. loolu baaxul dafay toj gàllaaj mais boo jëlee kubéer weñ di ko tëgg loolu maanaam amul lenn loo xamee ne benn conséquence moo ci nekk. mais tey Ousmane Sonko muy lancé loolu est-ce que jotoon naa leeral ni. Mhm. nañ tëgg cin wala kubéer parce que sénégalais moom xam nga. bu déggee tiir rek maanaam loolu. buñ nee tëgg xam nga yëmbut nga yor aw cin di ko diri. Mhm. loolu moom ko ku ko mën a def xamal ne li ngay def danger la baaxul ci moom. Mhm. baaxul ci réew mi. waaye maanaam bu fekkee candidat bi wax bi muy wax pour cin moo pour kubéer moo ko tax a jóg mhm. maanaam waxul kubéer sax da koo xaymaa ci noonu waaye lépp loo xamee ne nit ki mën na koo def ba biir wi am pour loolu moo ko tax a jóg boo gisee taximaan yi. Mhm. bi heure bi jotee dañuy dañuy dañuy klaxonné. dëgg la loolu kon boobaa nga mën a wax ne te klaxonné moom. <laughs> oto bu ci mhm. nekk mi ngi koy def. dëgg la kon xanaa xanaa chaque jour nga def loo xamee ne baaxul ci yow. dëgg la. loolu du eh, ay eh, loo xamee ne lu nit ki mën a def la. Mm-hmm. te du jar muy dem ci oto ki nga xamee ne am na oto nag. Mm-hmm. kooku war na mën a def dem jël otoom ko klaxonné parce que mm-hmm. ndax la da nga am lu la naqari ci ci réew mi. te mënoo mënoo ko saafara. d'accord bu dee casserole yi nee naa leen lenn moo ci dansé muy cin li cin li moo dansé. d'accord cin li moom moom ku mën a doon boo koy tëgg. baaxul baaxul ci réew mi baaxul ci nit ki. d' accord waaye bu dee kubéer yi moom dara nekk ci. d' accord waaw euh, ñu jëm at mu bees ñu gis euh, chaque année. Mm-hmm. président day jël benn lim. Mm-hmm. ci ay prisonniers libéré leen. Mm-hmm. tey ci wàllu baatin lim boobu mu ngi toll ci sept cent soixante dix. tey sept cent soixante dix yooyu noonu. boo ñu ko doon euh, firim fàcceel ci wàllu baatin. <laughs> waaw bu dee sept cent soixante dix ay lim la yoo xamee ne lim yu am solo la. parce que boo nee 700 rek am na benn lim lay jox même boo nee 70 am na benn lim mu lay jox. Mhm. loolu ñuy def euh, euh, xam-xamu hmm, calcul ñoom xam nañ ko. Mhm. waaye dafay baax nit ki des fois mu tooñ dafay baax nit ki des fois tooñ ndax yàlla rek yàlla maanaam même yàlla boo ko tooñee daf lay jégal. dëgg la dafay baax nit ki tooñ. Mhm. dem ba amatul ci boppam yaakaar nga woo ko ñëw nga ni ko jéggal naa la te la tax. dëgg la gis nga loolu. bokk na ci li nga xamee ni nit ki boo ko defee ah dina xam ne du sama njàmbaate moo tax ma def loolu waaye dinaa reccu lépp loo xamee ne defoon naa ko ci lu bon dinaa ko moytu bu baax ba dootuma ko defat nga xam ne boo ko defatul rek doo mën a demaat fa fañ la tëj mais sénégalais yu bari dañu jàpp ni loolu noonu ci wàllu ci wàllu ci wàllu mystique la parce que li boobu tamit c'est xam loolu <laughs> bokk na ci ay ay tegtal mm-hmm. nee naa bu dee côté sept cent soixante-dix ay tegtal lay doon mm-hmm. waaye euh, dafay am ñoo xamee ne mën nañ koo jàppee tegtal. te dañuy wax ne tegtal moo gën a gaaw sax ay ñaan yi. waaw maanaam mën na nekk euh, bu dee tegtal mën na nekk tegtal pour pour di pour pour maanaam samp ci réew mi. d'accord waaw waaye li gën a am solo mooy nit ki jaxle jàq tiit mënoo buuse mënoo génn mënoo def dara nga ne ko kaay ma génne la. Mhm. loolu ay ay ay mën mën na nekk ay sacrifice. Mhm. yooyu yëpp da ci doon. d'accord moo tax dañuy wax ne jamono ji jamono ji damay wax ne fu waay mën a dem wuti kaara gi sax ba nga def ko. jamono ji waaw. Mhm. parce que parce que euh, homme de politique yi ñu ngi ñu ngi def seen i sacrifice. Mhm. nit ñi nga xamee dañoo bëgg daraja bëgg àdduna ñu ngi def seen i sacrifice. te dañoo xam ne ay du yem ci loxol borom. dëgg la. gars yi la ñuy xool mooy. nuñ mën a def ba ba seen pouvoir. Mhm. jug mhm. mooy bu ñu leen laaj dañ koy def. Mhm. mooy bu ñu leen mën a laaj dañ koy def. nga gis ne <laughs> kenn ku ci nekk moo tax damay à chaque fois mën a nekk na dem wuti euh, kaaraange. jamono ji waaw parce que nii nii gars yi di doxee nii mën nga gisaat yeneen a yeneen. waaw ñu gis ni daanaka élection heure buy jub si. yu bari day faral di xew ci réew mi. te ñu gis euh, ñu ngi jub ay élection donte ñëwagul. mais at mu bees mi ni mu duggee nii est-ce que baax na ci réew mi. non baaxul ni mu doxee nii moom baaxul wax dëgg yàlla baaxul. gis nga dafam loo xamee ne Abdoulaye Wade moom dama koy dama koy yàlla. Hmm, ñaanal ko suñ borom guddal ak fam te wéral ko. Hmm. gis nga bu lii masaana xew. Hmm. da daan woolu jàngkat yi bu at daan teru at bi bu daan dugg si. da daan woo ay jàng ñi jàng alxuraan ñu jàng ay kaamil wàcce ko ci ci ci dëkk bi parce que bokk na ci li liy protéger dëkk bi. kaamil waaw ko daan def xam naa ci ay personnes yoo xamee ne dañ daan dem daan jàngi. yoo xamee ne euh, de da daan yëkkati daan da daan da den daan teral daan seral seen xol. Hmm. maanaam nit ki jàngal la alxuraan rek nga nga xorom yàlla suñu boom da lay dimbali waaye loolu amatul gisatuñ ko. dañ daan jóge dañ daan jugee eh, dëkk dem ba ci biir pale ba jàng ay kaamil kaamil yu bëree bëri bëri mm-hmm. loolu la koy waral day tax dëkk bi nekk ci jàmm mais bu dee gars yi may gis nii moom seen intérêt bopp rek moo leen tax a jóg mm-hmm. Mm-hmm. dëkk bu fekkee ne ab at at day dugg war ngaa ñaan suñ borom yàlla musal la ci at moomu bépp balaa bu ci xew. boo ko deful rek gàllankoor day am. waaye nag moo tax ma wax ne at mi ni mu taxawee nii mu commencé nii baaxul. waaw mbaaxul. Mhm. moo tax ku fu waaye mën a dem demal nga wuti kaaraange. Mhm. boo ko defee yàlla mën na laa dimbali. d' accord euh, li xew Kaffrine. Mhm. ma la koy jaale donte métti na ñëpp. Euh, ban yëg-yëg nga ci am naka nga ko yëgee aussi. waaw mooy euh, xol bu naqari. ak ay jooy. man nga wax ne ay jooy. bu doon benn nit la garaawul. nga xam ne suñ borom moo dogal. donte nag yàlla moo dogal. waaye lépp loo gis rek am na sabab. bu doon ñaari nit la nga ni garaawul bu doon ñett. Mhm. waaye ñi dem ba génne ci fanweer ak mhm. juróom-ñeent. Mhm. loolu dafay dem ba dafay jéggi dayo dafay dem ba dafay ëpp. maa ngi dégg da ngay dégg nag des fois dangay dégg version bu ne. nee gis naa nit mu ni ay jinne ñoo jaar foofu. <laughs> ñoo jaar ci yoon bi. foofu moom dinaa fa gis ne. gars yi nee nañ ay sacrifice la. gars yi nee ay bool yi ñu doon tëgg la. déedéet loolu xëy na wallahu alam yàlla rek a xam. waaye nit ñi nañuy bàyyi xel ne lu waroon am la. Hmm. waaye dañ koy sant yàlla te ñaanal leen way dawle yi nga xamee ne. Hmm. ñoo ñoo ñàkk seen bakkan ci loolu. Hmm. te di ko jaale euh, maanaam euh, waa Sénégal gépp parce que bëgguma bu ma cité gars ne damaa far. <laughs> te loolu laa loolu laa bañ. moo tax di jaale Sénégal gépp <laughs> uh-huh. waaw métti na moom. wax wax dëgg yàlla am nañ ci depuis démb ba léegi am nañ ci naqar xol. Euh, ndaxte li gën a gis naa ci nit koo xamee ne ndeysaan nee na soxnaam ak doomam. Mm-hmm. soxnaam soxnaam ak doom xale bu ndaw. Mm-hmm. dañ cee ñàkk bakkanam ndeysaan moo xam bay jooy. Mm-hmm. kooku maanaam ku ni ku ni naqariwu la rek. am naa fekk nga. dëgg kon nag nga gis ne métti na ci xol. waaye nañ ko sante yàlla lu a la. waaw lu waroon a am la. waaye li may dénk mooy nañu nañu nañuy xool nan la ñuy dawee ci tali bi. loolu des fois da nga koy gis Mm-hmm. saa gis borom biis boo xamee ne mm-hmm. comme moom moom moom tali bi mm-hmm. nu ko neexee lay dawee loolu moo tax gis nga accident yu mel nii daa nga ko dégg des fois di koy dégg ci ci dëkk européen mais bariwul d'accord man foofu noonu sax laa bëgg ñëw ci lu mel nii loo xam ne du ma mu ngi doog am Sénégal mais bariwul mel nii bu xewee ci ci ci dëkk ci wàllu baatin euh, lan lay firndeel waaw li muy firndeel mooy euh, euh, maanaam li muy wanee dafa bari <laughs> benn bi bokk na ci euh, maanaam ci wàllu yàqule <laughs> maanaam maanaam euh, bu ñu nee yàqule nag dëkk boo xamee ne mhm. maanaam dafay euh, nekk ci jàmm jékki-jékki rek dara xew mhm. te bu dara xewee daanaka day bëri ay nit ay bakkan yu ci rot loolu baaxul loolu yàqule lay doon kon da nga jàpp ni eh, président Macky Sall day bëgg a yàqule. <laughs> waaw loolu yaa ko tudd <laughs> waaw bëgguma di ko tudd. dëgg la mais loolu yow yaa ko tudd. Mm-hmm. mais euh, en tout cas daal yàqule lay doon. Mm-hmm. waaw yàqule lay di di génn di wax. Mm-hmm. naan foofu palaasu jinn la. foofu baaxul. Euh, ci wàllu ci wàllu ci wàllu baatin. ak sa xam-xam en tant que sénégalais. ban jàngat nga am ci li xew foofu. waaw li ma ci jàngat mooy. waaw doonte dëgg la sax parce que jinne day def loolu. waaye nit ki euh, gis nga maanaam bala ngaa dugg ci oto. mag ñi am na ay ñaan yu ñu daan def. loolu même bu bu accident am yàlla su borom dina lay musal. loolu mag ñi dañ ko daan def. Euh, parce que boo xoolee jinne yi dañ am ay ay ay dëkkuwaay. dañuy am ay dëkkuwaay. dañuy am ay yoon yoo xam ne dañ fay jaar. mën naa am ñoom ñu am foofu ay yoon yoo xamee ne dañ a jaar. Mhm. loolu yàlla wala axlam yàlla rek xam. Mhm. waaye li gën a am solo mooy nit booy dugg ci oto. Mhm. da ngay wut loo xamee ne da lay musal ci oto bi bu accident di am yàlla mën na laa dimbali. jamono ji boo bàyyee boo bàyyee sa bopp. ah la sa bakkan. kon nag loolu lu rawatina sax moment bii ñu la gën am solo mooy. nit ki nay nay wut lu koy musal. ba ci booy dugg ci avion sax. day musal. boo ko defee yàlla mën na laa dimbali. mais sénégalais yu bëri tamit am na ñu naan. Hmm. Ah, ñi faree ci parti bi ñu ngi naan est-ce que nekkul lim boobu noonu mu la waxoon sànq muy 770 bi mooy rejoindre fii. <laughs> waaw mën naa nekk mën naa nekk waaye li jigéen am solo mooy eh, nit ku ci nekk na dem wuti kaaraay. Hmm. parce que gars yi ku ci nekk ak la ngay def nee naa leen pouvoir wala wala wala wala wala nga jiite dara doomu aadama moom la jaral. ba bu bu ko jaaralee sax dafay sacrifice da koy def parce que dama gis ay nit ñoo xamee ne maanaam joxe bakkanu doomu aadama du dara ci ñoom maanaam tayle doom doomu aadama defuñu ko muy dara kon nag loolu na wut loo ne da ko defee yàlla mën na ko ci dimbali parce que gars yi ma gis nii moom moom lu mu laaj dañ koy def muy état bi non pas état mais mais gars yi ma gis rek moom dañoo ñaara fi nekk état wala Sonko tey tey gaa yi ma gis moom. Mhm. lu ñu laaj lu mu mhm. laaj dañ koy def. Mhm. loolu moom ñëpp a Sénégal loolu ko xam sax. te fare naa ci yow bay. Ah. ñu ni yéen ñi nga xam ne yéen ay ñaanal Ousmane Sonko. sax bokk ngeen ci ñi nga xam ne yéen a créé genre casserole yooyu noonu. pour tojtal dëkk bi est-ce que casserole yooyu tamit indiwul lii. waaw non casserole moom indiwu ko parce que bu doon loolu bu njëkk ba kon jëye ji xew na bu yàgg. nekk nañ koo def defaat ko parce que dañoo am lu li ñu naqari nag mooy. Mhm. wax nañ ba sonn gars yi dégguñu. Mhm. mars nañ des fois daf ñuy daf ñuy tere. Mhm. léegi nag lenn lañ mën def mooy. digle Sénégalais yi ku ko mën a def na ko def. donte nag nee naa leen cin bi cin bi moo gën a garaaw moo gën a dansé. cin li moom kenn du ko tëdd tëgg. boo tëgg ci kër kër gi day tas. boo koy tëgg ci dëkk dëkk ba day tas. boo koy tëgg ci ci réew réew mi daanaka daanaka léppay tasaaroo. d' accord kon nag nga gis ne cin bi baaxul. Mhm. mais bu dee euh, kii bi moom. Mhm. moom dafa nekk loo xamee ne nit ki dañoo am am lu ñu naqari ñi bëgg koo wax. d' accord duñu xam fu ñu koy waxee. d' accord est ce que jàppoo wax ji Serigne Cheikh waxoon nee nañu sangaat dëkk bi daanaka mooy ñëwaat. ba jamono Serigne Sow sax laa bëgg ñu ñëw bëri na ci ay Serigne yoo xamee ne waxuñu dëgg moom loolu dama la koy xamal dégg naa gis mu ni waxoon na accident bi dina am waaw mais mais nañu wax dëgg. man ak yow nañ ko nañ ko noté. Mhm. dina am diggante Touba tuuba Touba ak ak euh, euh, Dakar diggante Touba Dakar. Mhm. loolu noté nañ ko. Mhm. accident dina am diggante Dakar euh, Fatick. loolu noteel accident dina am diggante Dakar ak Kaolack accident dina am diggante Dakar ak ak saint xam nga yow noté ci tali tali boo mën gis. suñu borom loolu mun a ñàkk hmm. léegi nag tey jii bu ñu notee loolu jiyee xew léegi moo ma dagg li ñu waxante woon. ma ne wax lii waxoon nañ ko. ta <laughs> te pourtant teguma ko fen hmm. dafa am loo xam ngeen ni comme exemple ngeen tey euh, boo xëyee suba dina am ku faatu. Hmm. dina am ay nit ñu faatu loolu kay wax ju yàqu la parce que di nga xam ne am na ñuy faatu. mais rek naan xam nga li gën a wóor mooy. bis sàngam accident dina am. bis sàngam. accident dina am diggante. dëkk sàngam hmm. ak dëkk sàngam hmm. gis nga loolu boo ko ko mën a def hmm. boobaa dinañ mën a xam ne yow mii li ngay wax lu wóor la li ngay wax am nga foo ko teg waaye accident ci de mille vingt deux bi deux mille vingt deux bi non deux mille vingt trois bi dina am loolu ay wax ju yàqu la parce que bu ma nee la diggante yi diggante yi ma la nii foo mën a jaar du yàgg nga déggaat bi accident bu am gars yi dañuy dawal ba si yàgg seen pono bi toj nga jekk gis jàkkaaroo garab nga mbëkk ko. Mhm. wala oto bu doon ñëw sax nga cross ndeg moom. Mhm. loolu ay accident la de dafa am loo xam ne yëngu mhm. booy wax da xam li ngay wax lan la. waaye ay ay ay ay lii dina xew ak. Eh, lii dina am ak yooyu amul pour man la gën am solo mooy même boo gisee li a am sax nga fexee def lu ko lu lu ko lu ko loo xamee ne da koy da koy da koy wëlbati. loolu moom solo. ma gisee ne accident bii dina am. sa nee naa leen sarax mooy lépp dinaa def sarax ba ba ba accident ba bañ am parce que dinaa sauver ay bakkan doomu aadama hmm. te dañuy wax nit ki boo sauver bakkan doomu aadama hmm. te nit kuy jaamu yàlla boo nekkee jullit di jaamu yàlla lan lan nga bëgg suñu borom def la ko hmm. muy euh, texe la aduna ak texe la alaxira àdduna texe aduna mooy suñu borom wërsëgal la texe ak alaxira mooy suñ boo faatoo suñu borom dugg la jël kon nag lan mooy problème bi jarul jarul dafa am yoo xamee ne nit booy dañu wax ne euh, maanaam nit kii bala ngaa wax dara xoolal conséquences yi sa nekk ya cay am. dëgg la boo ko defee yàlla mën na laa dimbali. dëgg la waaye sëriñ si wax yu bari ñu ngi génn di wax. dëgg la di ci di wax waxoon naa ko yooyu amul sens. dëgg la pour man la gën am solo mooy boo ko gisee nga fexe ba wëlbati ko. dëgg la loolu moo ci am solo. dëgg la comme Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. dëgg la waaw euh, du ñàkk nii nag dinañ la laaj loolu comme da nga yëngu ci wàllu sarax jamono jii nii. Mhm. boo doon digal nit ñi. Mhm. Euh, yan sarax lañu war a sàkku ci réew mi. waaw loolu moom à chaque fois nee naa leen nit ki bu bëggee mucc saa bu xëyee wala bu fekkee dafay da da koy tële day bàyyi chaque ajuma day wut suukar biscuit tàndarma gis nga sarax bu simple la ngi noonu donte bu ci nekk fukki dërëm nga ko am sax mu nekk euh, mu nekk euh, cent cinquante franc baax na gisa boo bëggee yàlla muccal la ci jamono ji rawatina yi ngay gis nii yëpp yàlla dina la musal ci ci dee deewu mbégteel mbégteel yaa yàlla dina la musal ci jafe yi àdduna yàlla dina la musal ci féticheurs yi féticheurs yi ngay gis jamono ji nga gis ne loolu sarax bu am solo la ku ku ko mën a def na koy faraltaal di ko def sax ajjuma baax na donte cent cinquante franc yomb na amul góo ko jox baax na. Mhm. génne ko rek yàlla musal la. Mhm. boo ko defee rek yàlla dina la dimbali. d'accord waaw tey yaa ngi jàkkaarloog président. Mhm. muy dëkk ma li nga xam ne mooy troisième mandat. président nag daa mel ni sawaroo ci ay mbiram. président de daanaka moom. <laughs> muy dëkk ma troisième mandat. Euh, ban message nga koy lancé. waaw troisième mandat moom man moom dama ko seetaan. du fi du fi amee. du fi amee waaw loolu moom <laughs> xëy na mu mu mu ci rek. Euh, àndal mere ci man Euh, dafay dafay taal am réew. Mm-hmm. te loolu baaxul. Mm-hmm. la gën am solo mooy nañu respecter sénégalais yi la gën am solo nañu bàyyi xel sénégalais yi gis euh, guy dëkk bi metti na mm-hmm. ñu bëri ñoo xamee ne bu ñu añee duñu reer ñu bëri ñoo xamee ne bu ñu bu ñu reeree duñu ndékki kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais troisième mandat moom moom yaakaaruma dina ko def. yaakaaruma bu àndee bu fekkee am na ay conseils yu koy conseil mhm. yaakaaruma dina ko def. Mhm. waaw mhm. parce que baaxul ci moom daal. dëgg la waaw baaxul ci moom. tey euh, ñu ngi jég nag donte baaxu baaxuwoo di wax ci làmb. mais daanaka teyoon damaa ñëw taxawaayu ak taxawaayu actualité tey xam naa Cheikh bi. tey ni ma ñëwee ak moom dina jaaxal ñu bari. parce que xam nga Sénégal. des dañuy jàpp ni sëriñ ñoom daanaka. ci wàllu xaatim mag wàllu fooy rek la ñuy wax. Mm-hmm. te sëriñ ay nit lañ. Mm-hmm. dañuy xool actualité dañuy xew mm-hmm. dañuy xool li xew ci réew mi ñu ci waxtaan. Euh, surtout ñi nga xam ne dañoo mel ni yow nga xam ni heure bu ñu génnee nit ñi di leen déglu. tey ñu jëm làmb mu di Ada fas ak Zarko. Euh, euh, combat yooyu. <laughs> Ada ak làmb ji yaakaar naa. Mm. Mm. bu dee Ada Ada Fass. Euh, dama am benn xarit boo xam ne ko xam lool. ndeysaan. Euh, te yaakaar naa xarit boobu sax xam nga ko. Mm-hmm. Euh, yàlla suñu borom jamono ji mu teg ko ay natt. ndeysaan. daf ma ci daf ma ci doon laaj. ma ne ko fa bari de. Mm-hmm. bokkul ci samay samay jubluwaay. Mm-hmm. waaw waaye dama leen di ñaanal yàlla ñoom ñaar. maanaam yal na leen yàlla may gudd fan ak wér. waaw loolu laa leen di ñaanal. parce que parce que parce que dama gis ay nit ñoo xamee ne. Hmm. dañ ma ciy soññ parce dama ci am ay xarit. Hmm. yoo xamee moo tax du ma bëgg. Hmm. di ci wax. moo tax mais tey jii moo ma ci doon wax. moonoom yàlla mën na ma ciy dimbali ba la ma ciy wax lu leer lay doon. waaye waaye dama leen di dama leen di ñaanal ñoom. waaw. li li gën ci ñoom ñaar rek yàlla leen ko yàlla defal. parce que dama cee am benn xarit boo xamee ne da cee sonn. ndeysaan di ma chaque instant di ma ci di ma ci euh, di ma ci di ma ci laaj. man bëgguma cee wax parce que làmb damay bañ wax ci. Mm-hmm. ëllëg nit di ma gis. di ma ci mere. dëgg la dëgg la mais bu dee mbirum football moom. Mm-hmm. moom <laughs> problème. sa loxo nga ko uh-huh. tey. ok euh, ngi lay jaajëfal. Mm-hmm. waxtu wi xat na lool nag. Euh, ñu jël sa di la jégalu. tey ban message ngay lancé ak sa kàddu gu mujj ci émission bi. waaw message bi may lancé mooy damay ñaanal sénégalais. ñaan. ñi nga xamee ne way way way dawlu lañ mhm. dañu génn àdduna ci ci accident bi mhm. seeni njaboot mhm. yàlla may may leen xolum muñ tey ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm te yàlla musal ñu musal mboolem julit tey message bi may joxe mooy na ñuy bàyyante xel parce que àdduna dara saxu fi léppay jeex waaw di bàyyi yàqante bi bàyyi liggéeyante bi bàyyi def loo xamee ne ëllëg man nga cee am déception. Mm-hmm. kon nag loolu lu jër a bàyyi xel la. waaye de tey dénkaat sa suñu bopp. nañuy mm-hmm. nañuy nañuy nañuy nañuy xam ne Sénégal benn bopp la. Mm-hmm. kenn mënu ko xar ñaar. lépp suñu biir lay xewee. kon nag loolu lay dénk sénégalais yi. di ñaan yàlla ñu suñu suma suma sama site bi sax laa <laughs> yàlla suñu borom. def ko mu nekk site boo xamee ne. Euh, day day day nekk day mel ne jant rek. amiin amiin day mel ne jant. amiin euh, fu waaye toll di ko seen. amiin kon nag yàlla nañu ko yàlla defal wa aaxiru da'waanaa ani alhamdulillahi rabbil aalamiin. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. amiin ngeen jëf mbokk yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom la ñu amoon fii tey fas yéene woon Cheikh ak moom waxtaan euh, ñu ngi leen di jox yeneen di daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.